ñu ñëwaat yéen seen annonce analyse du compte polygamie épisode 27 sama gars yi lu doy waar ndax mun nañu coow li coow li kii di euh, njaago la ndax euh, mun nañ ni euh, sëwru décision bu mu jël léegi moom mi lay njaago moo ko daal di jëlloo ndax mun nañu njaago amul sago si kii di sëwru te mun nañ tam sëwru amul sago kii di njaago moo tax nag décision bu mu teg rek kii di sëwru mu daal di koy tracé loolu nag moo leen daal di indi ba diggante bii nii kii di bu ndaw daal di ànd ak kii kii di sëwru ñu takk ko mu daal di doon soxnay kii di sëwru sama gars yi nag loolu yëpp lu ko waral muy euh, wàllum jumte bi amoon si diggante sëwru ak euh, kii di yaay bu ndaw mun nañu nag ñàkk déggoo moo tax affaire yi ñëw bu fii yëpp tey euh, mun nañ ni seen normal sax ndax yaakaar na bañ indee may bu njëkk bi si la yaayu bu ndaw daal di juum jox ko bu ndaw te alors que bu ndaw moomu ko woon te instant yooyu nag tombé na kii di bu ndaw nekkoon di souffrir benn maladie bi nga xamante ne moom moo ko doon perturbé gars yi yaakaaroon ne maladie boobu dina continuer ba tax na nag euh, affaire boobu moo tourné wu ñëw daal di euh, réussir si kanamu ñëpp euh, que ni bu ndaw dara dalal ko moo tax nag affaire yi daal di dëpp carrément carte gi ba kii di sëwru daal di am ñaari soxna li nga xamante ne bëgg ko woon mais mun nañu nag kii di bu ndaw nekk na soxna bu baax nekk na koo xamante ne ku ko am soxna am nga soxna bu baax moo tax nag sëwru daal hésité sax pour jël ñaari soxna en même temps moo tax nag euh, au début mu ngi doon coow que moom du takk euh, ñaari jabar mais nag mën nañu yàlla mujj na ko see bu max mu daal di euh, ñam ñaari jabar lu muy joxe te que ni ñaari jabar yëpp baax nañ te nekk nañ ki nga ñi nga xamante ne yar nañ la fu ñu la war a yaree te mun nañu ñoo ngi commencé di gis résultat en commençant par kii di njaago mun nañu teewoon eh, na boppam carrément ba lii fekk ko si moo tax sama gars yi lu doy waar série bi nag moo ngi commencé di neex te tamit eh, su ngeen bàyyi xel gars yi ñu ngi koy commencé di suivre sama gars yi one love ñu topp série bi xool nan lay jafe-jee ndax am un jour dinañ ko mos a comparer ak eh, lii di yeneen série yi daw si Sénégal ndax nañu nag normal marqué gul pas bi nga xamante ne série précédent yëpp yu jeex yëpp noonu lañ marqué moo tax nag nañ comprendre benn côté moo ngi doog commencé moo ngi doog a débuté mais euh, loolu yëpp du problème nañ leen patienter rek ndax euh, lu yàgg dëgg la te tamit euh, série bi moo ngi commencé di jël def effet sama gars yi bi patient ñu xool nu muy demee jaa ngeen jëf.